nga xam ne am na combat lu leer laa lay wax la même kii bi yaakaar naa ne combat bi moom moom day yomb barki maam Cheikh Rafaal ngi nax boppam te ko wax ku ne yaa ngi nax yaa ngi nax nga dem liggéey. am yëpp ci àdduna kii moo ci gën a ñàkk sens. foo teg loolu kii respecté kii du respecté wu ma ko. dégg ko respecté wu. respecté wu ma ko jéemu ma ko respecté kii ku ma conseil ci moom sax li may conseil du ma ko def. ma jaar nii ma jaar ne ñu daje fii man ak moom ci naaw. li mu liggéey doyul. man sax lu ma liggéey doy sama ñeenti soxna yi laa koy booleel ñu duma ko daan ko attaqué ko ñe gagné incha allah mënoo ci dara. ci wax la man. dégluwuma ko jéemuma ko respecté barke alxuraan bu arbitre sifflé ma dàq ji ko day daw dama koy jàpp daan ko billaahi dama koy jàpp daan ko incha allah rabbi kii maa ko mën maa ko ëpp doole. diggante Fass ak caaro yi wala Fass ak Lamsar yëpp benn la rek Coly Faye numéro 2 ak PAM. ne nga nga <laughs> naan sama temps moo jeex. léegi mu dug léegi mu dugal foofu waaye man foofu sañu maa woote fenn nan néeg ba néeg ba néeg ba 40 000 laa illah ma doyal am néeg 40 000 <laughs> ah ah 40 000 néeg. ne 40 000 du dara. seer. yow yaa ñu fayaleel ba pare de. yaa ñu fayal man damaa yor ma fayal de. <laughs> yaa ñu fayal de. kay lay tee ma dugal foofu rek moom muut seen. muut si àdduna yow yaa ñu fayal dem bàyyi ñu fa. ci loo nekk mbaa yaa ngi ci jàmm. waa ñu ngi sant yàlla bu baax la man. lan moo war a seen teewaay fii. waa Kaolack moom première chose mooy Baye Mandione suñu grand frère mooy bëre am nañ droit teew fi du dëgg beneen bi si topp mooy Kaolack buñ fi ñëwee ñëw nañ suñu kër ndax chaque jour bu ñuy bëre dañuy déplacé wu def ay car taal jakarta yi ñëw soutenir nu quoi waaw dañ fay ñëw si ñaar ñooñu. da ngeen ñëw pour remercier soppe yi waaye da ngeen fay ñëw tamit pour soutenir Baye Mandione. ñëw fi tamit. ñu defaale ko ça fait l'occasion ñu remercier soppe yi. léegi nag booy yaa ngi kiif yaa ngi dal wala dalagoo ba léegi. <laughs> non la ngay attaqué liiru jaar rek. non daa mel ni sotti nañ ma ndox mu sedd nag <laughs> waaw. bu lépp weesoo nag lambu kese la bu jeex na jeex. waaw bu lépp passé moom ñu ngi félicité Sa Thiès du dëgg di ko di ko ñaanal yàlla ndam li jikko parce que tamit sport la yaa ngi dégg sport dafa war a boole mais warta tàqale du dëgg tey ji ñu bëri foog nañ na sax. defet bee tax ñuy waxe noonu non non ñun dépassé nañ lool Lamine comprendre nga parce que yàgg nañoo bëre nit du ñu daan si sa kanam teewul dañuy xëy takkaat suñuy dàll takkaat suñu ndigg demaat xam nga kon miin nañ defet min nañ victoire lii du dara parce que moom làmb ñoo ànd tey mbër ñëw na fi ñu dóor ko mu daanu ko gënuñu ko ndey gënuñu ko bàyyi mbër ñëw na fi ñu daan ko ba toog si kawam gënuñu ko ndey gënuñu leen bàyyi du dëgg kon tey suñu borom bu ñu suturaalee am na loo xam ne sant yàlla sax la war a doon parce que mun naa ne sutura suñu borom la xam nga ñu ngi ciy sant bu baax mais du problème mu defet bee tax ñuy communiquer juste que maanaam daa am lu ñu doon leeral rek muy affaire de vie privée yi affaire yooyu suñu mag ñi bëri nañ ba bàyyi bëre mosoo leen a dégg si ay affaire de dugal làmb si vie privée parce que pour dire vrai làmb dafa commencé yàqu quoi xam nga parce que nañ ko yemale rek si aspect làmb après bu jeexee jeex na quoi si cadre sport sport dafa war a boole mais warta tàqale tey gis na man maa ngi jégalu ñu bëri nag ñëpp sama sorte bi ma def bi ma ko defee wallaahi lamin ñi ma woo ñu ëpp ñu dëkk géejawaay ñoo ëpp sax ñi ma woo ñu nekk caaro yi xam nga ku si nekk see xameewuñ la nii bul di waxee nii xam nga yow dañ lay déglu dañ lay seeraan xam nga mu doon tamit affaire boo xam ne gën naa tax ma ma war a defaraat sama toogaay gën a xam tamit fi ma toll fan la daal. Mhm. liiru ñaan nag loo la sa suñu suñu papa la dépassé nañ nijaay. liiru mun laa jur xale 40 ans la am nee na. liiru 65 daa def jugement. <laughs> attan na laa bàyyi ci xam nga waa tey ji liiru suñu suñu nijaay la ñu ngi koy jégalu tamit encore une fois xam nga di ko wax ne tamit maanaam des fois nit dina tax nga wax nit loo xam ne jëloo woon intention bi comprendre nga parce que tamit ñu ngi koy jégalu bu baax encore une fois di jégalu ñëp di jégalu le monde entier xam nga parce que tamit affaire bi lamin yow da ngay dem sax ba wallaay daf lay ëpp loxo xam nga mais lépp sant yàlla la parce que suñuy moroom a ngi si dëkk bi sutura bi ñu suñ borom defal defalu leen ko kon daal ñun daal duñ def lu dul sant suñ borom bu wër. léegi nag fu ngeen jëm reprendre ngeen entraînement wala yéen ngi noppalu ba waaw noon jot ñoo noppale ko parce que tamit suñu frère suñu xarit Coly Faye 2 war naa bëre du dëgg war naa bëre le 18 ñu koy ñaanal yàlla ndam booy xool maanaam bi ñu bëree lënd bi ñu wujjee xam nga la la ñu la ñu continué waat suñuy entraînement dem nekkaat si li ñu war a nekk parce que instant bi temps amul. xam nga combat suñu combat la suñu combat combat qualifié la ku si nekk gis nga li muy suñu combat xam nga moo tax temps amul noppale ko amul di ko ñaanal suñu borom yàlla defal ko ndam lu sedd guy si kaw Pape Ndoye. léegi rek fu mu waa rek mu ngi fi pour làmb rek parce que tamit sooy xool tey rek xale la xam nga rek ak Sa Thiès yaakaaruñu si làmb làmb moo yaakaar si ñoom. xam nga parce que tey ku si nekk rek am nga possibilité tey Sa Thiès amoon na possibilité dem liggéey leneen wala mu dagg visa dem États-Unis toog fan dina ne ay moroomam rek tamit pare noonu mun naa mu dem defi leneen sport mais lamb moo yaakaar si ñoom lamb moo soxla ñu mel ni ñoom xam nga ay xale lañ avenir mu ngi seen kanam wallahi ñoom liñ dese mu ëpp liñ paase xam nga kon nag tey jii nii amul benn affaire boo xam ne tey soo xool rek moo ëpp adversaire si lamb ji yaa ngi dégg te lamb dafa soxla renfort si kaw xam nga tey mun nañ ne Sa Thiès yàlla may na ko ndam mais yàqalul dara rek teewul ñi mu war a bëreel rek lay bëreel. ñoom ñan la ñan la bàyyi tawari bi waxal ñan la. Sa Thiès ñi mu rek lay bëreel waaw. ñooñu ñan la. waaw mais làmb rek ñu nekk si làmb rek parce que sooy xool tey xam nga làmb dafa doon loo xam ne fi mu toll du mbër mi mooy mooy choisir ay adversaire am la. Eh, <laughs> non non bàyyi ko mu waxal boppam ba pare. xam nga xam nga maanaam làmb day toll foo xam ne du yéen yéenay choisirati da ngay xool li neex làmb li neex sey supporter rek nga dox si. li fa dem wax loo ci wa waaw Lac de Guiers tamit la de Guiers mu ngi fi ngir làmb yàgg na Lac de soo xool yow kii lamin la de Guiers ak Ama Balde laa gën a yërëm si làmb wallaahi azim dañoo sonn si làmb ba pare làmb defalagu leen le mieux kon nag tey jii nii maanaam sooy xool Lac de Guiers heure bi waroon naa teglante ay combat ay combat xam nga sooy xool moom tamit ku bëri adversaire la si làmb ji yaa ngi dégg moom garant bu baax la <laughs> yaa ngi dégg mais daal rek daal mu ngi fi pour làmb ku ko làmb booleel incha allah dina bëre. mais pare ngeen pour Lac. waaw déggoo ma rek pare na pour ñëpp sooy xool rek moo ëpp adversaire si làmb ji amul benn mbër boo xam ne da nga koy konteel sept adversaire wala huit adversaire si kaw. xam nga tey rek nag sooy xool ñëpp lay bëreel à part Siteu kon kooku xam ne moo ëpp adversaire si lamb ji. Mhm. jërëjëf jërëjëf na xam ne am na combat lu leer lay wax la mel kii bi yaakaar ne combat bi dama ne moom day yomb barki maam Cheikh ko wax ku ne yaa ngi nax yaa am yëpp ci àdduna kii moo ci gën a ñàkk sens. foo teg loolu kii respecté kii du respecté wu ma ko. dégg ko respecté respecté wu ko jéem ma ko respecté. kii ku ma conseil ci moom sax li may conseil du ma ko def. ma jaar nii ma jaar ne ñu daje fii man ak moom ci naaw. lu mu liggéey doyul. man sax lu ma liggéey doyul. sama ñeenti soxna yi laa koy booleel ñu duma ko daan ko attaqué koñe gagné incha allah mënoo ci dara. ci lay wax Lamine man. dégluwuma ko jéemuma ko respecté barke alxuraan bu arbitre sifflé ma dàq ji ko day daw dama koy jàpp daan ko billaahi dama koy jàpp daan ko incha allah rabbi kii maa ko mën maa ko ëpp doole. diggante Fass ak caaro yi wala Fass ak Lamsar yëpp benn la rek Coly Faye numéro 2 ak PAM.